léegi nag bala ngeen a xàddi quand ma ñëw ci li leen intéressé benn bi mooy je souhaite et le fait que Ousmane Sonko puisse être candidat à l'élection présidentielle du procès en appel et même en cassation. Pour qu'il soit clair aux yeux des jeunes qui sont avec lui, que ça ne sert à rien de casser et de brûler. personne n'a peur de leur leader. En tout cas pas moi, qui ai failli être son patron. Et il me l'a rappelé quand je suis passé le voir. Il est venu à deux reprises chez moi avec l'intention de militer dans mon parti. quest que je suis allé faire chez Ousmane Sonko le 27 le 26 mu jiite timis ma jiite ko gée ñu rek timis ji ci li nga biral ayatul kursi nga tari ak Quraysh ma firil ko ñaar yépp ne ko lii lay signifier mais bi muy songu ayatul kursi bi yokku naa sama teewlu ndax daf ma daloon ca Ablaye Wade ja bi ma ko teeroo mu jógee foofu ñëw permanence rek songu ayatul kursi yu ma ni yàlla na egg de sinon dinañ am problème mu tàmbali alaaw alaaw alaaw ma ne ah wóorul de mais Macky bosam dafa leer nañ ma ne ko Quraysh bii nga ñaareele ci la sa lettre de mission nekk am na ñu dul ndékki suba am na ñu dul ay te réew mi jàq nañu ndax ñépp jàpp nañ ni le 30 bu Ousmane Sonko dee wuy ji tribunal réew mi dana takk ma ne ko am naa ci xalaat mais du ma la wax xalaat bi dama koy jëfe ba pare bu doxee alhamdulilah bu doxul yaa moom sa décret bii ngay signé nga dàq ma mais da nangu ma doxal te du la wax li may doxal lan la mu ne ma d'accord wóolu naa la ma dem ci laa demee kër Ousmane Sonko wa awha ila abdihi ma awha il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla mooy seen yoon newu ci lama ma waxanteeg moom seen yoon newu ci wante daal la ca juddoo ci yiw pour Sénégal ak yéen ñii ba ngeen xëy 3 avril marche amul ñu défilé défilé bu neex président de la république invité opposition bi ñu gàntal ndax seen mbokk yi nekkoon ci kaso li jur loola ca fajar googa la judd. Assemblée nationale bu Sénégal jamono jile kat mun nañ war ne kat dafa dal di nekk vacances mu doon mbir bi nga xamante ne député yu fare ci coalition Yewwi Askan Wi di ñaawlu bu baax a baax ñi sakku conseil constitutionnel mu daal di ci yéyàb bi amul beneen baat ni assemblée nationale dafa gént maanaam assemblée nationale ay buntam dañoo tëj amul lenn loo xam ne lii moo war a tere depuis motion de censure ba assemblée nationale daje amul lenn loo xam ne lii moo war a tere lu fonctionnement normal liggéey xam ne bi moom la yoon teg ci ndodd assemblée nationale muy un pouvoir public constitutionnel une institution de la république def liggéeyam bi ñu seetloo ni groupe parlementaire bi dafa bind conseil constitutionnel bu wax ko ne président assemblée nationale daanaka amatul président lépp dal na ci kaw bureau mu jal ko fa toog mel ni ku yëgul li xew nañu convoqué assemblée nationale ñu fal président assemblée nationale bu bees maanaam le premier vice président de l'assemblée nationale remplacer le président de l'assemblée nationale bi fi nekk comme bëggul liggéey ñu ni ko xam ne ki nangu naa liggéey ngir askan bi du ñeel ci révision exceptionnelle liste électorale yi mi nga xamante ne door nañ ko juróom-benn fan ci weeru avril jàpp juróom fan ci weeru mai mu mel ni boobu boobule sax dafa daal di gàtt ngir ñu mën a bindu ñi nga xamante ne mooy primo votant yi. juge de référés bàyyi fi lii yëpp nañu décret bi méngoog naa ak yoon ñun li ñu doon demandé da koy dàq te li ñu demandé du lenn lu dul wax ko ne ko yow yaa am sañ-sañu def révision exceptionnelle wax leen ko ni ko comme moom moo am sañ-sañ bi balaa la 6 mai na ci yokkaat un mois pour jeunes yi war a mën a inscrire inscrire ñun ndaw yi Sénégal la ñuy waxal. ndax Macky Sall moo wax ni yéen ñëpp bu ngeen bëggee inscrire 24 jours la leen may ñun ñu ne ko may leen yeneen 24 jours muy 48 jours Macky Sall lànk ko kon bëggul jeunes yi de loo xam ne li yow yaa ko moom ci sa ay bopp man nga koo mayee du la rey du tax nga dee mu lànk tifaaxat ne du ko def itte bi ille bi leer na ni seen pexe yépp mooy jeunes yi nga xam ne dañoo taxaw ñoom seen bopp di wax ni ku ñibbi Macky falu parce que loolu mooy seen slogan fu mu toll nii. procès en appel ñaari député yu fare ci PUR ak procès bu Ousmane Sonko ñu war koo amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weer avril ñu dënmal mission Yewwi Askan Wi di sàkku mobilisation bu forte ci palais de la République. Sonko ci même salle bi le 17 fa lay taxaw député yi le groupe parlementaire ñu ne am nañ fa ñaari député foofu lañ leen di boole wëlbati ko jàpp sunu 400 wala 600 militants. denc leen ci biir kaso bi Yewwi à la na bàyyi justice bi mu bëgg a jël ko def ko ngànnaay di ko dóor ci kaw nit yi moom moo fi dàq liggéey moo fi la meilleur président na teg bi la am keneen teg discours am jeex na Sénégal lay àtte mais xam na ne Sénégal dañoo àtte avant l'heure mais mënul tere fii ñu jëm moo tax ñuy waxaat député yëpp na leen nañu taxaw pour le 17 bi na ngeen ñëw indi seeni écharpe yi ñu leen jox ngeen mandargaal ni vous êtes des représentants du peuple. député yu faree ci coalition Yewwi Askan Wi seen la ak tasukatu xibaar yi. li nga xamante ne mooy 2000 bracelet électronique yi. gouvernement bu Sénégal daal di ko fi teg. coalition bile bi nga xamante ne Ousmane Sonko moo ko daal di jiite. ci seen gis-gis. yëf yi caaxaan neen la. mooy président assemblée nationale nga xam ne Macky Sall la ko fa teg. ak maj euh, coalition Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo bëggatul yéen journalistes yi ngeen di ñëw assemblée nationale di couvrir comme plénière yi nu mu fa demee parce que gis nañ ni ci débat yi dañ leen dominer gis nañ ni assemblée nationale dafa nekk foofu ay députés du peuple ñoo fa nekk di porter la voix du peuple di critiquer di joxe ay propositions par rapport ak politique désastreuse ba nga xam ne Macky Sall woon koy dérouler loolu nag nañu bañ. sénégalais yi di ko déglu moo tax depuis législature bi bu mu commencé déposé nañu lu toll ci cent cinq question au gouvernement parce que as député dafa war a contrôler saytu lu gouvernement di daf lu administration di def déposé nañ ci cent cinq question mooy téeméer ak juróomi laajte question au gouvernement ci téeméer ak juróom laajte yooyu am na deux questions écrites mooy ay questions yoo xam ne dañ ko bind te gouvernement bi suy tontu dañuy tontu par écrit si de question écrites yooyu ñoo ngi jot fukk ak juróom-ñett réponses 18 réponses nañ jot si 62 question écrites ñu déposé également lu tool si trente questions orales daf ay laajte yoo xam ne dañ ko bind yónnee ko également gouvernement bi ci ay problème mu sénégalais yoo xam ne secteur yépp la. yu jëm ci napp ji problème yu ci am jamono ji am na suñu collègue bu di si déposé njallu bàcc li lu jëm ci problème mu quarante 45 milliards yi lu jëm ci problème mu terre bi wax nañ ci ak yeneen ak yeneen ak problème yoo xam ne pour sénégalais yi moom la ñu jànkoonteel maanaam secteur u développement yépp ñoo ngi ciy wax ak scandale yoo xam ne ñoo ngi ci ñoo ngi ciy wax di si laaj gouvernement bi mais ci 30 question orales yi ba léegi tontooguñu si benn ci treize questions d'actualité ñu déposé également ba léegi amaguñu tontu question d'actualité am na boo xam ne déposé nañ ko récemment mooy sur la pêche problème mu pêche boo nga xam ne moo am diggante mool yi nga xam ne ay mbokk nañu waa Kayaar ak waa Mboro ak waa Guet Ndar vraiment mu metti ñu donc ñu laaj ci gouvernement yi yan tax ban taxawaay la ci am ak ban saafara la ci war a indi mais 43 questions orales ak d'actualité yi ba léegi amaguñ ci benn tontu te loolu lu ko waral. mooy gouvernement ba toutes les deux semaines dafa war a ñëw assemblée nationale pour tontu question yooyu te su boobaa yéen waa presse bi da ngeen am droit ñëw assemblée nationale question orale yeeg question d'actualité yi ngeen retransmettre ko en direct tontu yi ñun laaj ñu ñuy laaj ak tontu yu gouvernement di joxe. chambre d'accusation bu cour d'appel bu ndakaaru daal di woon sëgg alxemes bile ci requête bu jëm ci delloo passeport bi nga xamante ni ni défense pap Alé Niang daal di woon nañ ko déposé ci ab rendez-vous médical bu mu na ma amal fële ca France journaliste bi daal di woon amal ñaari yoon ab grève de faim jëmale ko ci ñaari yoon bi nga xamante ni teg nañ ko loxo moom sax mu sàkku woon ci juge bu deuxième cabinet ngir ñu delloo ko ab passeport am ngir mu mën a amal boobule voyage fële ca France waaye lii di parquet bi ak magistrat instructeur bi moom dañ ko lankaloon boobu boobule bëgg-bëgg waraloon sax ba mu daal di attaqué boobule ordonnance fële ca chambre d'accusation boobule chambre d'accusation sax daal di tranché woon jox ñi nga xamante moo di juge bi ab dëgg gannaaw bi nga xamante ni ne dañoo daal di woon révoqué li di contrôle judiciaire am daal di ko delloo woon fële ca kasu ba Pape Alé Niang moom ñoo ngi ko daal di toppee joxe ay xibaar yoo xamante ni ne mën na indi jeexital ci défense nationale bi wala saxara rawale ay document administratif wala militaire bu ci joxe ay xibaar yu wéerul la moom moomu di njiital site d'information en ligne bi di Dakar Matin daal di woon nañ ko libéré waat sous contrôle judiciaire loolu sax waraloon ba sax ñu daal di ko tere ngir mu daal di yéey yàbbi ci ba mbir moomule wala sax mu daal di génn réew mi waraloon ba tax ñu daal di nangu li di passeport am moom mu di Pape Alé Niang war a présenté wu fële ca cabinet bu magistrat districteur benn yoon ci weer wu nekk gannaaw li ñuy jàppee discrimination négative jëm ci cadre traitement salaire indemnité ba ci logement ñoom fonctionnaire au niveau yooyu ba ci contractuel yi liggéeyee fële ca dix-huit ministères ñu booloo ci benn collectif bu ñu duppee collectif interministériel des agents de l' administration sénégalaise ñoom ñu ne ñu ñaawlu bedd gi nga xam ne dañ koy amal ci ñoom bu fekkee ne ay rémunération moom ñoo ngi koy amal ci yeneen fonctionnaires yi la collectif bi sax dañu xam ne ne am na ab ndaje seen digg ak kii di Mamadou Moustapha Ba nekk fi ministre du budget moom moomu sax xamle ne lii di recadrage budgétaire bu 2023 moom jëlaalewut en compte benn yoon yooyu la indemnité waaye moom mi la sax daal dina ànd ci li nga xamante ne moo di seeni revendication bu fekkee ne amul ay coppite bu ci njeextalu weer wi le collectif bi moom dàqul organiser ab marche pacifique wala sax dem bu galagose li di administration sénégalaise ñoom ñu la sax dàquñu tamit daal di booloo ak lii di syndicat des travailleurs de la santé ak ñi yëngatu ci wàllu yoon ngir ñoom ñi la ñu daal di amal ay action